Uh... naan bikum xanaa Sénégal amut njiitu réew ay waay waay ana kilifa yi senegaal yi ñetti fanu yàlla askan waa ngi feebar munu ñoo faju hay soxnaa ngi dem ci ay hôpital war xam doom ñu leen di dàq kajji na kenn du leen laal ñetti fanu yàlla waa kër docteur xamal garaw faju jafe askan wi sonn te boobu ba léegi dégguñu njiiti réew mi wala benn kilifa ci réew mi yéy ci yàbbi le quotidien yi ne kaay moo amal seetlu bi ba tax muy laajte ana lan moo waral tekk tekkaaralu suñ kilifa yi tem mbir mu garaaw ah. jamono ji Sénégal ci wàllu wér-gu-yaram direct news na ko faay dëggal li nga wax yow seetal ca diiwaanu Louga ay soxna yu hëmb war a wasin ñëw ca maternité ba hôpital ba sage-femme ya na leen ñun fa ñoo reewlewut suñu yoon nekku ci yéen dem leen ci clinique yi privé yi wala ngeen dem diiwaanu Ndar yéen kaay bi na ana lu gën a ñaaw loolu tëj ab maternité foo xam ne fa ngay muccal ay doomu aadama ñu naan yooyu yaay fa geraw ana geraw ba seetaan nit muy dee xana lu ko gën a bon dëgg-dëgg nguur gi fa war a jël ay responsabilité docteur Fallou Samb moo ko wax ci biir xam fa bokk ci ordre des médecins yu Sénégal bu yaatu xóot ngir saafara jafe-jafe yi docteur Assane Diop jiite syndicat pharmacie Sénégal yi ne ñun de suñ garaaw bi pharmacie yëpp a jëfee ndigal li si di quotidien nag xam nga yéen lu ngeen def démb suba ba ñetti waxtu ci bëccëg fa ngeen a bañ na du ngeen jaay hay garab le quotidien yéen a kaay na ko man faa waxut démb waaye bërki démb bërkaati démb yëpp kër docteur sénégalais yi ñu xopp tawat fa sonn fa jaaxle ndax hôpital boo dem ñu la fa ja mooy ne jàngalekat yi ñuy wax ay décisionnaire fa ñoo fas yéene amal geraw weeru mai wi di ñëw si du quotidien ne fa ñuy sàkku ñu dugal leen ci fonction publique bi ba tax ñu fas yéene ñàkkante ak nguur gi yéene kaay bi ne kon njàng meeg njàngale mi nar naa xamati problème de faneen fu xam problème mooy mbootaayu maire yi ci Sénégal ña farak Macky Sall maanaam waa AMS ya ayaw seetal Aliou Sall rakku Macky Sall xam nga fa jeexal léegi postam ba nag ka ko war a moo jur coow de ña ngay rayante ca seen biir diggante wuuri baylo Ba nekk yeneen maire yu bëgg jiite kuréel ga ñi jiite parti yi ñuy wax ay parti gauche fa ñoo deltu ginnaaw seen parti ya fa dee yee parti ya tasaaroo nañ seen doole daal fa wàññeeku torop ci géewu politique bi enquête yéen kaay na lan moo ko waral ndax bu ngeen seetloo ginnaaw wàccug liggéey dans soxo Tanor Dieng ak Bathily mi nga xam ne moom fa à la ci wàllu politique li ni moo tax parti féetoo ci càmmooy bi amuñu njiit leadership bu dëgër xam nga fi nekkee ñoom parti yooyu ay sikkim lañ rek gars yi di leen jox ay quota ay poste rek noppi ña bañ ne duñ noppi nag mooy fukki député ak juróom-ñaar ci assemblée nationale fa taxaw lànk wàññi ne coppite gi ñu bëgg a andi ci wàññik li mu député yi ci proportionnel bi nee neen ànduñ ci bés bi yéene kaay moo ñu ko xamal info yéene kaay ne fukki député juróom-ñaar yooyu fa ñoo taxaw ngir ñàkkante ak Macky Sall li mu bëgg fa ñoo taxaw ca kanam luwaa ba na ko xalaa mandiir bàjjo xalaa xalaa doo fi jaar Macky na leen waa lu tax du ma fi jaar ñu ne ko parce nga bëgg a def nii d'accorduñ ci du yoon ñuy wàññi liste député yi proportionnel bi te loo ci bañu nag bañu ñu ko ci fas mooy Barthélemy Diaz ak Bamba Fall ca mairie bu <laughs> Bamba Fall fa wax Barthélemy Dias na ko hëy yow laay waxal faa bëgg nga déglu ma jël gi nga jël ay Guy Marius Sagna capitaine Touré ni ngay jëlee daal ci biir mairie bi d'accorduma ci ak ni ngay jëndee oto ak yeneen yi ni mel Barthélemy Dias na ko faa bëgg nga may ma tontu la gis nga man faa gisut benn texte boo xam ne fa may xaayee sama sañ-sañ ti jël ab liggéeykat waxuma laak ab décret boo xam ne tamit fay tere jënd ay oto wala su loolu amee tamit xanaa ko te gis nga man waxu ñàkk fay di caaxaan caaxaan yi sax faa li ma war a def kenn mënu ma koo teree def ci mairie bu Ndakaaru doon ruumandaat naan yoo yaay fa bëgg a fekk Macky Sall transhumé moom maire bu yoof Seydina Issa Lay Samb ci Vox Populi weddi na xibaar yi ba tëdd ca pegg géeju yoof ga nee na nit ñi fa ñuy dégg téll rek ne matt ga damm na man Macky Sall dalal na ma ca pale ba naam waaye nekkutoon man kenn mbooloo lañu woon te la yóbbu woon mooy suñ tefes gii wàllu suuf si doxalin beeg yi ni mel moom lañ doon lijjanti ñi yaakaar nag wala di naan man faa bëgg a fekk Macky kaay wax day jeex kàddoom yaa ngi ci les échos yéen a kaay si du quotidien na ko fi mu toll kay intaha c'est fini jeex na ndax leeral nga ne politique yóbbu la woon ca pale ba te doo ma wor ñi dëkkee nag di wor africain yi mooy tubaab yi ci wàllu football li ñuy wax ballon d'or tubaab yi xalaatuñ koo jox sax africain yi Jay-Jay Okocha bu Nigéria moo ko wax ci record yéen a kaay ne waaye ren jii buñ ko joxul Sadio Mané xaw ma kan lañ koy jox la mu ñu jox a kaay mooy na waaye lu jëm la nee na loolu moom du ma ma wax leen li nekk ci yow seetal benn sénégalais ak ñaari malien takk der ya fañ leen a teg loxo ca frontière Sénégal ak Mali xam nga lu ñu defam fa ñoo fekk ca ñoom xaalis bu toll ci benn milliard bu tegal juróom-ñaar téeméeri million aay yéen de bu ngeen rawoon fa ngeen di tekki de waaye raw nag moo jafe takk deru Sénégal yi fa ñoo mën a enquête fa ñoo xarañ fa ñoo garaaw kuñ bëgg jàpp-jàpp la de